ahousubillahi mina seytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di ziyaare bu baax di leen jox seen wàccuwaay ziyaar bi ak nuyoo bi ñu ngi koy tàmbale ci kilifa kër gi muy Cheikh Moustapha al Karim di ko ñaanal borom bi subhaanahu wa taala yàggal ko fi loolu tam wér ak njabootam gi mu àndal yëpp ci liggéey bi ginnaaw loolu ñu ñëw ci ndigalal waañu kër sëñ Malick Guèye ci donga daara yi nga xamante ni ñoo fi taxaw ci liggéey bi ñuy ànd kook suñuy jëwrin yëpp yéen ko mata di baaxoo di ko àndal muy sëñ Moustapha gi mi nga xamante ni moo fi nekkal sëñ Moustapha Ndiarème mu nekk nii toog suñ kanam moom moo ñu jiite ci liggéey bi ñu ànd ko ak moom liggéey bi nag ni mu demee mooy ñu ngi ñaan yàlla dugg ci bisimilah rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamina ba ndigal li nga xamante sëñ Muntaxa sant na ko ñetti bunt ñetti uh, bunti kër yi muy kër sëriñ Malick kër Seex Adama kër Seex ma baabu ñu def ci lu kawe njortam ba ni mu ko bëggee rek mu gisee ko noona uh, liggéey bi nag taalibe yëpp ñëw nañ ànd nañoo ak seenu ñaq ak seen doole ñu ngi ñaan képp koo xamante ni ñu ko waxeere woon rek feeñ nga ci nga bañ a nëbbooti ba faw ñu. xam le ne ndigal la nag ndigal moom caabi la bu ëppee du ubbi te bu manqué du ubbi te ndigal li nin ko sëñ bi bëggee rek moom la nan ko ànd ko ko yar ànd ko ko teggin ànd ko ko silwise ànd ak lépp li nga xamante ni daal mooy ndigalu sëñ bi bëgg-bëggu sëñ bi yàlla nañ sëñ bi kàttanal ñu dugg ci bisimilah rahmaani rahiim génn ci alhamdulilah rabil alamin ñun nag ay donga daara loon moomeew ñu wax waaye nag ak cant la rek ñu ngi wax ci turu xidmatul xaddim bi nga xamante ni moo nekk kër sëñ Moustapha Eh, di sant mboole mi ñëpp ndax woote nan ñëpp ñëw nan boole koog seenu ñaq ak seen addiya joxe ko ci kon boog képp koo xamante ni feeñ nga ci yàlla boo nëbbati ba faw yàlla ñu eh, yàlla yàggal fi taxa Muntaxa Mbàkke tam wér lool ak Cheikh mu Guèye ak eh, ñëpp rek taalibi jullit yëpp barke Seexul Xaddim